you

alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa ashaabihi sawi ridwaani wa tamkin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ci waxtu bu tedd bi ak ci barab bu tedd bi ñu nekk di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mooy nu jàmm te may leen ko te di ko delloo ñaan mu yàggal fi sunu kilifa gu tedd gi ne ci sunu kanam mu gën fee yàgg lool yàlla defal ko tawfiq ba mu àggale yéeneem ci diine ji ak ci yoon wi te ñu ànd ko ak moom suñu tomb tey bi ñu war waxtaanee mooy xam-xam ak wàccuwaay bu mag bi nga xam ne am na ko ci diine waaye am na ko ci woote cheikhul xadim bii di nga xam ne moom lañ ci lañu nekk mbokk yi ñu xam ne xam-xam dafa am wàccuwaay bu mag ci diine mën nañu wax ne sax mooy fondement diine mooy ponk ponkam bi gën a rëy ndax bu ñu delloo ci alxuraan liy seere si mooy li njëkk wàcc ci alxuraan aaya bi ci njëkk a wàcc mooy iqra te ku ne qiraa bu ku ne jàng wax nga xam-xam li nga xam ne tam mooy baat bi nit di wax ba dugg ci lislaam muy baatub shahaadataan ashhadu an laa ilaha illa baat boobu kiñ ko wax loo dañoo jiital ne na ko xam door koo wax faalam annahu laa ilaha illa laa ilaha illa hu loolu li muy wane mooy solo gu xam-xam am solo ak war guñ ko war a jiital xam-xamit mooy liy ràññale nit ñi nit ñi ñiy féete kaw ak ñiy des gannaaw ak ñiy gën ak ñi ñiñ gën fi ñu koy xamee mooy ci xam-xam lañ koy xamee mooy rawantale nit ñi yarfa illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajaat hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun doy na ci xam-xam rek tedd nga mu ñu ne mooy liggéeyub yonent yi mooy seen métier bu ñu wax métier dañuy wax ne mooy métiem yonent wi ak yonent yëpp huwa alladi baasa fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayaati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaab wal moom yonent bi mu dellu ko leeral ne innama buistu mualliman man dañ maa yónni may ab jàngalekat dañ may yónni may ab jàngalekat boroom xam-xam yi nga xam ne sax ñoo dikk gannaaw yonent bi dañoo jël tedd nga jooju donn ko ci yonent yi teraa nga joo xam ne xam leen ko may ndax liñ dollu ci yi mooy xam ak tasaare ko te amul benn daraja bu gën a rëy daraja yonent waaye amul benn tedd nga bu gën a tedd donn yonent te boroom xam-xam yi donn giñ donn yonent bi ñi ngi ko donnoo ci xam-xam Cheikhul Xadim mi nga xam ne mooy suñu royukaay itam ci diine nekkoon koo xam ne ku yëkkati woon xam-xam teg ko ci barab bam mu yeyoo daan ko jiital di dégle ñu jiital ko ci lépp lu ñuy def ñu jiital ca xam-xam fa qaddim il ilma ala kulli amal ida aradta an tafuusa bil amal nen na nga jiital xam-xam ci lépp looy def soo bëggee am la nga bëgg ci la ngay def waalam wal ilmu afdalu axi min al amal wa ussuhu fa faasa man lahu xasal nee na nga jiital uh, xam-xam day buñ doon teg xam-xam ak jëf ñu ne xam-xam moo gën jëf te mooy fondement am waaye nag balaa jëf xam-xam am njariñ dañ koy jëfee waaye bala ñoo jëfee dañuy xam lakin nama samratuhu kan nafi fii amalin bihi fakuntal jamci wa filu cheyin qabla an yaclama maa xakama fihi mutlaqan rabu sama mimma ala mukallafin qad xaruma qadim ala ibadatin taalluma def dara dara lu dara la wax bu fi lu sey def dara dara dara lu mën a doon jëkk ngay xam atteb sunu borom ca jëf joojee nee na araam na ci mukallaf kon boo bëggee mucc ci loolu jiitalal xam-xam ci jëf bala ngaa jëf benn jëf na jiital xam-xam moom sëriñ bi sax dem na ba àgg ci ay jamono mel ni seytaane day day day day bëreeg moom di ko xalaat loo bàyyi jàng ak jàngale mu jàpp ne loolu pexem saytaane la xalaat rek waxuma def ko sax waaye xalaat koo bàyyi rek nee na pexem saytaane la wa kittu lil amdaaxi wal itraai azhadu fi taalifi wal iqraai wa fi taallumi wa fi taalimi wa fi istixaali bi hudal maalumi xaw koo def rek nga xam ne xelam gi sax loolu sax pexem saytaane la ko jàppee ci bàyyi jàng ak jàngale moom jàng ak jàngale ni mu doon métier yonent bi noonu la doon métier moom Sëriñ Tuubaa mu ne ca bi fi fiy nekk ba bi mu fi bañ koy noppee gis loolu dong ci la mës a nekk suba ak bëccëg jàngale rek ci la mës a nekk moo doon métier waaye wane na ne sax jihaad ji mu jihaad ba am ca lim ci am ak noon yi nee na jihaad jooju kat weesuwut xam-xam ak jëfe xam-xam ak jëfe rek loolu rek la doon jihaatee amul ngànnaay saayir amul dara waaye xam-xam ak jëfe xam-xam rek inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa doon ñaan ñaan ñaan suñu borom tabaraka wa taala tam mu mu mu mu mu defal ko dëkkam bii nga xam ne mooy Touba mu defal ko ko muy dëkk boo xam ne day doon dëkkub xam-xam day doon dëkkub xam-xam ñu di fi saxal xam-xam di ko fi tasaare di ko fi jàng wajal binaa iya binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi waaye nañ ko def na ko def dëkku bu xam-xam faw nag la wax ba faw wajahu daban maskana taallumi waaye wa mawdi al fikrati wa tafahumi bayit boobu bu ñu ko déggee dañuy xam ne lu fi am rek sëriñ bi junjoon na ko maskana taallumi mën nañ ko jàppee mboolem njàng yi nga xam ne njàng yu ndaw la li nit kiy jiital ci njàng muy ñu ko tuddee njàng mu ndaw loolu maskana taallumi wa mawdi al fikrati wa tafahumi université yii fii xew ci jamono yii ñu ne Touba am na ñaari université te dana am lu ko ëpp ñu jàpp ne mawdiul fikrati mooy université ndax fa la ñuy xalaatee fa la ñuy déggee kon mën nañoo jàppee loolu ñaanuk sëriñ bi gu nangu goo xam ne ñun ñëpp ñu ngi gis seere si moom sëriñ bi ci loolu la nekkoon ba làqu ci saayir bàyyi fi ak njabootam njabootam di ay doomam bàyyi fi ak njabootam di ay muritam murit yooyee taxaw temm ci saxal loole mu doon ñaan ngir mu am mu jëmm ñu taxawal ay jàngukaayu alxuraan yu bari dëkk murit boo dem gis fa jàngukaayu jàkka ak jàngukaay moo moo koy xamee moo koy xàmmee def ay jàngukaayu xam-xam def ay jàngukaay yu bees yu yàgg yi ak yu bees yi yëpp jàngukaay yëpp taxaw nañ ci taxaw temm ba def ci loo xam ne néew na ñeneen ñu ko ci def ci biir réew mi ak ci bitim réew sax waaw ak ci bitim réew sax loolu lépp nag ay taxawaay yoo xam ne fañ ko jëlee rek mooy bëgg amal mébétum sëriñ bi ak ñaanu sëriñ bi gim ñaanoon dëkk bi nekk dëkkub xam-xam moo tax ñoo ñëpp kenn ku nekk def la nga man ci côté boobu taxawee ko ba xam tasaaroo ci dëkk bi ak ci réew mi ba mbir mi agsi nag ci sunu kilifa gu tedd gi Cheikh Mamadou Mountakha mu def soxlaam sépp mu def xam-xam la moom moom lim lim soxlaam sépp daal mi ngi ko wékk ci xam-xam wala li muy njëkk a tàmbalee gën koo jox awlawiya jox gën koo jox priorité mooy xam-xam mu daal di taxawal projet bu mag bu rëy bii di mu jàmm u Cheikhul Xadim li tarbiya wa taalim ma jom ma am boobu nga xam ne dafa boole ci biiram mboolem xeeti jàng yi li ñuy jàng ci alxuraan alquran daara alquran jàngay taxaw di tàkk daara majlis jàng taxaw di tàkk da kulliyaat yi nga xam ne moo jëm ci njàng mu kawe mi ma nga taxaw di tàkk yooyu yëpp tàmbuli na ba ma nga ca liggéeyam di ca liggéey liggéey bu sell boo xam ne ragal nañu ne buñ demee diir bu gàtt danañ gis njariñ yi ca juddoo waaye moom mu mu euh, jàmmaa boobu wala complexe boobu itam làmmoo na ca biiram benn direction wala benn euh, banqaas boo xam ne moom la ñuy tuddee idaaratu madaris Touba muy banqaas bi toppatoo mbir njàngum Touba mi nga xam ne moo génn université bi ñu ñu ko tuddee ay ay daara wala ay école yoo xam ne yu yu yu yu yu dëppook jamono la yooyee sëriñ bi sàkk benn mbootaay goo xam ne ñoom ñooy saytu école yooyu ñooy saytu doxinam ñooy saytu ak nosam ndax xam ne luñ nosul rek day daal di jur lor kon lu nos jàngukaay yooyu toppatoo ko ba mu jaar ci aw yoon yu mu war a jaar loolu sëriñ bi moo ko digle sàkk mbootaay goo xam ne ñoo koy toppatoo mesulüm Resulü على السلام bànqaas boobu nga xam ne nag moo ah, nekk ci biir mu jàmm Cheikhul Khadim boobu ñu di ko tuddee idaaratu madarisi Touba muy direction des écoles de Touba banqaas boobu sëriñ bi dénkoon mu saytu luy nos njàngum Touba mii njàngum école yi ci biir Touba saytu it ba mu nekk njàng moo xam ne day dox ci wenn doxin waaye la ñuy jàng it day nekk menn njàng moo xam ne ñëpp koy bokk moom banqaas boobu mu liggéey liggéeyam boo xam ne mi ngi ko tàmbali woon lu jiitu ñeenti at ci gannaaw mu ne ci liggéey boobu di ko liggéey ànd koog mbooleem ñi nga xam ne seen xam-xam dafa jëm ci wàllu googu ñu tabax loo xam ne jàpp nañ ne dëppoo na ak ni ko sëriñ bi bëggee woon ñu dem jébbal ko ko lu jiitu semaine ci gannaaw rek mu yër ko xool ko ba génne ndigalam lu màgg loolu mu génne woon ngir mboolem jàngukaay yi ne ci dëkk bi ñu di ko jëfandikoo di ko euh, euh, di ko di ko di ko jàngale loole mu leen digaloon ñu def ko nag ci biir programme yi ñu doon jàng mën nañ koo tënk rek ci ñeenti mbir ba ca jëkk mooy école yépp lu dalee ci ndigal lii jëm ci kanam dañuy dugal lu ñuy wax siiratu Cheikh al maanaam jaar-jaari sëriñ Touba fam feeñee ci sayir ba fam laqoo ci sayir lépp ak lañ ne ci diggante ba ñu def ko la ci gën a am solo ñu jëko jàngal xale bi mu di ko nàmpaale bi muy tàmbali jàng ba bu màggee dana xam kan mooy sëriñ bi ndax loolu tam ku dëkk Touba te di bi ak ku dul bi sax jaadu na mu xam kan mooy sëriñ Touba ak lan mooy ab yëngutoom buñ ca jógee ñu nekk sëriñ Tuubaa kat jëmm la woon joo xam ne xam ko baax na waaye nag xam li ko taxoon a jógit baax na te loolu moom lañu tuddee al muridiya taalibe gii mu fi indi di tarixatul muridiya lan mooy ak murid lan mooy ay ponkam lan moo ci aju loola it jaadu na ci ku ne ci dëkk bi di jàng nga xam loola xam ngu ràññeeku ba boo ko gisee leneen lu bokkut ak moom nga mën koo ràññee waaye ak murid dafa dugg ci biir tasawuf kon dañoo war a jàng tasawuf xam ne mu ci biir tasawuf la ko Sëñ Tuubaa wootee waaye tasawuf boobu muy soufisme ñu war koo jàng xam ay ponkam xam ay euh, banqaasam yi ca bokk yépp ba bu ëllëgee soo gisee lu ko nuru te doonu ko nga mën koo xàmmee ak loola waaye ñeenteel ba nag mooy Sëriñ Tuubaa dafa taalif lu bari ci ay xasida yoo xam ne yii dafa jëm ci tagg yonent bi yi jëm ci dafa jëm ci jaar-jaar yonent bi yi dafa jëm ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi waaye waaye taalif na it loo xam ne dafa jëm ci xam-xam lu jëm ci tawxiid lu jëm ci fiq lu jëm ci naxu loolu dajaa taalif lu bari loolu la mu ci taalif nag dana jaadu ci gone yi jàng ñu ko di ñu koy boole ci seen njàng buñ jàngee lu aja ca loola ci ci ci yeneen téere waaye nag ñu dugal ca téere sëriñ bi rek jàngaale loola nga xam ne moom la sëriñ bi taalif ngir ñu xam ne seen seen seen mag mii ñu amkat kat yéesut menn mag luñ taalif rek wax na ca luñ taalif def na ca kon loolu daanaka moo aju ci manhaj bi nga xam ne wala euh, euh, réforme yi nga xam ne def nañ ko ci manhaj yi nga xam ne wala euh, manhaj yi nga xam ne moo fi nekkoon ñu di ko jàng yooyu ñeent yooyu rek moom lañ ci tàbbal kon muy am njëriñ yoo xam ne réew mépp ko soxla waaye nag dëkk bi moo ko gën a soxla gone yi nga xam ne ñooy jàng yi ñoo ko gën a soxla ngir seen njàng dëppoo ak liñ soxla ci seen bopp waaye dëppoo ak dëkk bi nga xam ne ci la ñu nekk di fi yëngatu di fi di fi jàng kon ñu ngi ñaan suñu borom ko taala mu taw feexal ñu ba ñu mën a jëfandikoo ndigal sëriñ bi ci yooyu ñu tudd ba nga xam ne danañ ca laqee njariñal koo xam ne jëfandikoo ko ndigal te mooy nangu jëf ñu nangu sa jëf waaye mu musul ñu ci euh, lay juddoo ci ñàkk gaa jëfandikoo te mooy ñàkk nangu jëf ndax laa tafalu shay'an bi xeyri izni fal iznu shartun fi qabuli sha'ni lu aju ci ñaari xutba yi nga xam ne nag moom la ilimaan bi war a léegi ci kanam xutba bu njëkk bi gannaaw bu mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu yàlla julli ci bi sallallahu alayhi wa daf ñuy soññ ci julli juróom ak rëy gum rëy ci lislaam nga xam ne mooy ponk bi gën a rëy ci lislaam gannaaw boo tuddee eh, ñaari baati seere yi muy loo xam ne nag eh, yonent bi sallallahu alayhi dañ koo farataal ci moom ci kaw asamaan jaamu yàlla yëpp dañ ko farataal ci suuf waaye moom julli moom yàlla da ko woo ci kaw asamaan ba mu dem ba àgg foo xam ne kenn mosu fa àgg mu farataal ci moom julli loolu li muy wane mooy màgg gu màgg julli ak rëy gu rëy gum rëy ndax julli mooy jaamu yàlla gi nga xam ne boo koy def rek yaa ngi waxanteeg yàlla direct yaa ngi waxanteeg yàlla mubasharatan kenn doxul sa digganteeg moom yaa ngi yaa ngi waxanteeg yàlla waaye mooy mooy jaamu yàlla gi nga xam ne tam ku koy def diggante julli gu ne ak moroomam day far bakkaar ya fa nekk yépp lépp loo def diggante suba ak tusubaar sunu borom tabaraka wa boo jullee suba julli tusbaar sunu borom daf la koy faral naka noonu boo jullee tusbaar ba takkusaan boo jullee takkusaan ba timis boo jullee timis ba gee lépp lu na ci diggante bi ci bakkaar rek sunu borom tabaraka wa taala daf la koy faral kon nee na na ngeen taxaw temm ci di ko def ca waxtu ya ndax julli baax na waaye nag def ko ca waxtu wa inna salaata kaanat alal muminina kitaaba mawquuta julli dafa am waxtu julli gu ne am na fu mu tàmbalee ci waxtoom am na fu ñoom ci waxtoom nañ koy fexe ba di ko def ca waxtu yooyee waaye julli dafa am ay atte àtte yam am ci ya koy baaxal ak ya koy yàq yépp nga fexe ba xam yooye ba boo koy def def iqaamatu salaat ma taxawal julli waaye doo julli rek waaye dangay ngay taxawal julli taxawal julli mooy julli te ànd ak xam-xam julli la ca war lépp nga xam ko kon da ngeen xam ne ku topp yàlla te taqoog ragal ko nee na danga texe danga am li nga bëgg waaye koo xam ne bëgg yàlla daf laa gënal bëgg lu dul yàlla nee na da nga jege yàlla te ku jege yàlla am la nga bëgg lépp jëmale ci bi mu sant yàlla ba noppi mi ngi ko jëmale ci màgg goo xam ne xéewal gi ñu yàlla xéewal màgg na ko muy yónni gi mu yónni ci nun yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko yónni ko ci nun te muy gën a tedd ci yónnent yëpp waaye andil gi mu ñu téere bi gën ci téere yëpp muy alxuraan ak wax yi gën ci wax yëpp muy ahadisu nabi sallallahu alayhi wa moo bi nga xam ne dafa ñuy leeral yoon wi di ñu ommat dañu dekk suñu làmp boo xam ne ci lañuy ñuy niitoo ngir àgg fa ñu jëm ñu xam ne nag àdduna ak li ci nekk lépp xayaal rek la maanaam jiñaar rek la da koy jiñaar lii rek waaye boo ci àggee xam ne du dara looy séen ba defe dara la te boo ci àggee xam ne du dara loolu mooy àdduna lépp lu ne ci kaw àdduna yi nañ xam ne suuf lay mujj rek ci suuf lay mujj du kër waaye alaxira mooy kërug saxwaay ba alaxira mooy kërug dëkkuwaay ba kon yéen ñëpp na ngeen jublu ci jaamu seen borom tabaraka wa taala te di ko jégglu saxoo jégglu ko di ko sabbaal guddi euh, suba ak ngoon di ko di ko sabbaal di ko kañ suba ak ngoon kon yàlla na yàlla def ñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy rus yàlla ba ragal ko ba rus koo mooy waaye dañ koy rus ba rus ba bàyyi li mu ñu li mu ñu digal yàlla na yàlla may loolu te yàlla na yàlla musal yàlla na yàlla musal ci am tiit ci sunu dund ak ci sunu faatu yépp yàlla ñu yàlla jéggal sunuy bàkkaar te suturaal ñu suñuy awra te jëflanteeg ñun ca la mu mel bañ a jëflanteeg ñun ci nu ñu mel axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin yaxfirullahu lana wa lakum wa lisaa'iril muslimin amin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

Hey! الحمد لله الذي جعل هذه الصلوات لمبنى الإسلام ركنا مسيدا وأودع فيها من أسرار المناجاة ما يجد حلاوته من أراد به رشدا نحمده تعالى ونشكره حمد وشكر من لإقامة قواعد الإسلام هداه نسأله أن يجعلنا ممن انقاد لأقوال مولانا رسول الله واتبع هداه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 فأهضم بها من عبادة يناجي العبد فيها مولاه وناهيك بها من طاعة تكفر ما تخلل بينها وبين أختها من ذنوب العبد وخطاياه فأقيموها في أزمانها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 شهادة نجد بركتها يوم يجمع الأولين والآخرين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما نكون بهما يوم الفزع الأكبر من الآمنين أما بعد فيا أيها الناس إن الله تعالى قد هومت مننه علينا إذ بعث أشرف رسله إلينا وجاء من الآيات المحكمات والأحاديث الصحاح البينات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 فسوى والذي قدر فهدى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 صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده حبنا لقد الله allahu akbar allahu akbar allahu akbar alhamdulillah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 لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا allahu akbar allahu akbar asalaamaaleykum